mbokk yi Serigne Abdoul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yëpp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca ca quartier ba ñu duppee sëriñ Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seen i mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. yow ba fii nga xamante ni fa la Cheikh Bara Ndiaye di dalloo séerikat yi moom de yàlla dogal na téewoon nañ ko amoon na it ay jafe-jafe lool sonnoon na lool waaye nag dafa taxawoon dogu daal ni màggalu Serigne Touba gi moom mën naree fekk si kaso bi xam naa ne ak kees ngeen di yóbbu Touba mën naree fekk si si kaso bi. si biir mm-hmm. looloo euh, mel na ne yàlla euh, dimbali na ko Serigne bi taxawu na ko ba du fekk ko si biir kaso ba waaye it nañ si biir hôpital bi fi mu toll nii daal ndax buñ ko jàppee daal daal dañ ko naal ba mu ndox une fois ñu sol comme ndox ak ñu sa topp. Euh, noo gisee loolu yi. waaw d'abord Cheikh Bara ñu koy nuyu encore une fois di ko ñaanal jàmm démb déggante nañ. Mhm. Euh, ginnaaw bi mu génnee euh, Baye Mbaye woo na ma jox ko ma ko. Mhm. Mhm. waaye nag demaguma ci hôpital ba seeti ko. waaw loolu nag parce que Sénégal man ñu bari ni ñuy doxee ak nu may doxee tamit. wuute na. parce que dama jàpp ni Cheikh Bara fi mu toll nii alhamdulilah génn na. li ëpp solo d'abord mooy ñu ba ko mu récupérer mais nee nga démb rang ba nga fa fekk mhm. yow ba nga demee nee nga ma dem nga fa te fekk nga fa rang boo xam ne xamoo nu muy noppaloo ay soppe yi waaw nga naan gaayaa nga dajaloo ma ne la waaye yow it carang ba nga. <laughs> waaw <laughs> <laughs> parce que. man ba ëndaale. waaw xam nga yow dem di dem di jël la balaat ba la jox balaat ba nga yenu ko yóbbu. xam nga loolu moom yow moom vraiment yàlla yàlla donc en tout cas. Mm. Euh, dafa dem ngir récupérer. je pense que ni bon nit ñi am nañu largement le temps. Mm-hmm. Euh, parce dafa jóge ci kii bi dem ci hôpital mënoon na dem këram. mais le fait que mu dem hôpital rek loolu wax la. am na am na euh, parce que ñun Sénégal euh, dafa am nu ñuy doxee noo xam ni. Mm. bu ñëwee diw feebar na rek. Mm. ñëpp dañ ñaan nañ ko seeti. finalement malaat ba. Mm-hmm. malaat dafa war a dallu. Mm-hmm. finalement malaat ba dootul dallu day xëy di recevoir suba mm. ba ngoon parce que mm-hmm. ñoom ñëpp dañuy jàpp ne tamit ku ko seetiwut rek. dañuy jàpp ni euh, dalay mere. dalay mere waaw man nag wax dëgg fa yàlla doxewu ma noonu nag man moom wax dëgg fa yàlla. jàpp naa ni li ma seq ak nit ki man ak nit kee ko seq. Mm-hmm. que ni nit ñi naan waaw ndax yow seeti nga diw ak defal nii ak naak mm-hmm. na fi mu toll nii mbaa du ci mer ak yooyu doona loolu moom topp géré wu ma foofu. Mm-hmm. li nit ñi di wax waaye daal man li ma gëm. Euh, moom laay euh, def foofu. waaw gëm naa ni daal. Cheikh Bara fi mu toll li mu soxla mooy mu récupérer. daal di dallu après nag temps am na. pour saa yoo ko bëggee seeti. seeti ji ko. donc di waxaale rek sunu mbokk yi mm-hmm. ngir ñu bàyyi xel loolu mm-hmm. may ko tuuti mu récupérer mm-hmm. bu baax a baax jotaat ki yoon euh, waaye xam nga nit ñi dañuy bëgg tamit génn dem nettali gis naa ko nii la mel ak naa la mel fi mu toll nii ndax jàpp na forme ak jàpp ñu ci bari kumpa aussi tamit day nekk ci li nga xamante ni mooy mbir mi mais d'abord ñi ngi en tout kontaan nañ ci bu baax a baax a ah. baax waaw kontaan nañ bu baax ci génnam man nag dama jàpp ni sax wartoon a dugg bay génn. parce que Cheikh Baara. Mhm. Euh, nit la koo xam ni man dama jàpp ni état bu fekkente ni bii état daf ko waroon def sax partenaire allié que ni mu def ko li nga xam ne moom la ko def parce que euh, ub leen seen gémmiñ baaxut. Mhm. waaw rawatina ci kuy wax. loo xamante ni bii njariñ la ngir réew mi. Mhm. parce que Cheikh Baara li muy wax du kuy saaga. du koo xam ne mi ngi wax wax ju ñaaw. toll na fi ay jamono ay nit ñu ànd ak Ousmane Sonko sax mere ko. Mm-hmm. ci kaw bu mu amee xalaatam. Mm-hmm. gis ni usmaan Sonko dafa war dem ci dialogue. mu mm-hmm. nekkoon ngëm-ngëmam di gis-gisam. tey jii am na ñoo xamante bi nee nañ Cheikh Bara am na raison te am na ñoo mm. xamante bi démb bi mu waxee loolu dañ daf bul ñu fontoo mm-hmm. mais gis-gisam la woon mm-hmm. mu nekk loo xamante ni bi nit ñi dañ ko ko mën a war a nangul comme ni muy taxawee mm-hmm. pare saa di wax ci loo xamante bi day wax ci sa leader loo xam ne da nga koy tàccu waaw donc bu waxee nale loolu dafa nekk loo xamante ni bi gis-gis la boo xamante ni bi amoon na ko donc nag ñu mel noonu Euh, defe naa ni danga leen a war a protéger. Mm-hmm. parce que tamit gis nga dafa am loo xam ne dafay rafle kilifa da koy rafle loolu da koy néewle. Mm-hmm. muñ ko koy wax dëgg. Mm-hmm. yombul kilifa di ko am. am na ñu bari ñoo xam ne looloo leen sànq. ñàkk am ñu leen di wax dëgg. ay nit ñoo xam ne dañuy taxaw di la jay di la wan ne la yaay diw yaay doomu diw ak diw. fàtte nga ni li nga yor ay doomu diw ñoo dajale. jox la ko ay nit. ñoo dajaloo nga jaay leen ngëm-ngëm hmm. seetuñu sa judd hmm. seetuñu ndax yaay doomu diw wala yaay doomu diw waaye yow mi ñëw wax ak ñoom hmm. la ñu déglu li nga wax ñu am ci loolu yaakaar ay doomi diw ak diw dajaloo fal la boo demee nag ba falu nag fëgg sa dënd ne man maay xam ngeen man naay kan fàtte la nga leen waxoon yëpp ne leen man maay doomu diw ak diw bu boobaa loolu taxutoon ñu fal la donc euh, li ëpp solo mooy ngay déglu ñi nga xamante ni bi tey hmm. man damay jàpp ni meilleur allié président Macky Sall yi hmm. mooy ñi ñu jàppee tey ñi waa APR e, képp ko APR e jàppee noonu hmm. alliéem nga alliéem képp ku APR e jàppee ne kii ku baax la wóor yàlla doo alliéem parce que man dama jàpp ni waa APR ñooñu ñooñu ci seen jëmmi bopp di jàppee nit ñi noonu ñoom ñooy première noonu président Macky Sall. ñoom ñooy première noonu président Macky Sall ñi nga xamante ni bi tey ñenn ñi nga xamante am lu waxuma ñëpp nag. dama ne am na ci ñoo xamante ni bi tey. nga xamante ni bi tey liñ ko doon bëmax yëpp du lu ko doon yëkkati. du lu ko doon tegal ki du lu koy yëkkati ci kaw du lu koy euh, def li tax ñu faloon ko. ñenn ñu bari jàppal Cheikh Bara jàppal diw jàppal diw lan la ko jariñ si mbiri si mbiri jàpp yooyu mbiri jàpp yooyu da ngay gis koo xam ne dañ koy jàpp nit ñi ah dafa juum ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal dina nga gis kuñ jàpp koo xam ne xol yëpp si tàng lu tax ñu koy jàpp ñii di jooy ñii di jooy ba kooku bu ñu ko bàyyee xol yi seet daan ñaan alhamdulilah tàngal fee xol seral fii xol xanaa kon tàngal bu kii ba seral bi dina ko yàq effacé de xanaa waa xam nga Sénégal moom ma wax la leen euh, réew lañ moo xamante ni mën nga leen a def lu ne mais nga defal leen tuuti rek ñu fàttali nga leen defoon hmm. lépp maanaam nit peuple buy jéggale la quoi. Hmm. peuple la buy baale. kon kay ñooñu neex nañoo nekkal. waaw mais peuple buy baale lañ yaa ngi mais nag peuple bi mi ngi commencé di miite wu. Hmm. il faut que ñu def très attention parce que léegi da ngay gis am na ñoo xamante ni bi ñu bari ñoo xamante ni bi dañ lay wax ne la man melu ma woon nii. Hmm. mais léegi damaa mel nii. waaw waaw maanaam nit ñi ñu ngi commencé. parce que doxalin yi mooy soppi nit ñi. parce que man déglu naa benn bis benn audio waa ji damaa reew sax ma ne waa ji ne mais man nit bu mësaana faatu mhm. nee na bu te ni ñenn ci ñuy jiite dañu am kii mhm. nee na da doon mer mhm. maanaam da ci doon am lu ko naqari quoi daan na am lu ko naqari mais nee na léegi day bëgg hmm. mu ne léegi loolu xamut lu ko ko def maanaam li muy gis ci pénc mi ñu di ko def ay nit loolu moo sabab mu dem ba commencé formaté wu commencé miite jóge ci lii nekk leneen donc loolu il faut que ñu di ci bàyyi xel. Mhm. donc Cheikh Bara ñu ngi koy ñaanal bu baax. amiin waay amiin euh, wér. Mhm. mu def. séjour bu muy am ca mm-hmm. fa nga xam ni mooy hôpital mm-hmm. daal di dem ca màggal ga ci jàmm mm-hmm. ak salaam parce que mbokk yi namm nañ ko vraiment njaboot gi namm nañ ko kateeg ñëpp ñu ngi leen di <laughs> nuyu soxna Kati moom <laughs> jàmbaar la waaw vraiment jàmbaar la Baye Mbaye aussi tamit ah, euh, di nit ku di nit ku baax nit ku jàmbaare vraiment ñu ngi koy nuyu bu baax parce que moom à chaque fois Euh, macha allah dama doon wax ne damay toog pare saay sax ay bis yoo xam ni. Mhm. du ma ko bëgg a woo. parce que doo xam te et puis bon. Mhm. saa yoo wootee rek. Ah saa yoo amee espoir gis nga maman bi nga xam ne amuñu espoir. Mhm. moo tax pare saa yi liñ daan yaakaar. pare saa yi da ngay yaakaar yaakaar maman bi ñu amul espoir ci la ma bàyyi mbay woo bi may woo man xaw ma sax mu woo ma ne ma mhm. Cheikh Baara bàyyi nañ. waaw ah, ndax Cheikh Baara bàyyi na nga sibile. waaw non mais c'est extraordinaire voilà. li ñu ko def dafa xare xam mais bon yooyu yëpp nag mosut a jógee ci moom. Mhm. moo tax it bi mu jógee ci moom rek. ne mhm. maître kii Sarr nu mu tëddati. Moussa Sarr Moussa Sarr Moussa Sarr maître Moussa Sarr di ku baax. vraiment di koo xamante ni euh, amel nañ ko njukkal. nekk nit koo xamante ni kii nit ku baax la vraiment tadda dal. Mhm. parce que am na yu bari yoo xam ne bu waxee mu ne ma ah man mi avocat am de ah, yëgu. du ko yow mi léegi nga woo mu ma <laughs> ah ma ah. waaye nag lu ne mën naa ne. ndeysaan loolu rek lay wax du weddi du kii bu ne ah man mi dugal kii bi de yëgu ma ko. waaw waaye nag. mën naa ne eh, mën lu ne mën naa ne. mais gis nga bi muy amit mhm. ci moom la jaar moom mooy moom mooy ki nga xam ne moo jox Baye Mbaye xibaar bi ah, Baye Mbaye jox ñu ko nga xam ne boobooy bu wóor bi nag mhm. waaw kon xalaat na ni mu waxee noonu day mel ne am affaire léegi waaw mën na demee neneen waaw loolu mën na non mën na demee neneen ah, moo tax lay wax ne la carrément ah man de loolu yëguguma ko mhm. waaw te man ma avocat te yëguguma ah, ah, vraiment maître Moussa <laughs> ñun moom wax dëgg fa yàlla kontaan mhm. nañ ci yow mhm. et di la ñaanal yàlla na la sunu borom dolli kattanal parce que sa taxawaay vraiment am na njariñ lool lool kàddu gi ñëpp la moom ñoom Pape Alé ñëpp rek non non moom moom vraiment macha allah kàddu gi benn la Moussa Sarr non Moussa Sarr jàmbaar la mm, yàlla na ko yàlla jàpp amin waay waaw démb léegi yaakaar naa ni ndeysaan mu ngi doon yónnee Cheikh Bara ay xéwal li mu war a xéwloo foofu maa ngi taseeg eh, soxna su baax ndeysaan mooy muuru nii rek xam naa ne mm. yaa saydaa la mm-hmm. maa ngi ko wax Ba Mbaye maa ngi kii di daam fu ma ko xam ngi si TikTok bi di liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. waaw ñu ngi koy ndokkeel kat yi suñu borom gën mm. koo taxawu amiin amiin waaye Cheikh Bara Ndiaye it ñu ngi koy ñaanal baax yàlla gën koo dëgëral mm. ba liggéey bi nga xam ne su mën a ko am réewam ak l'islam yàlla kartanal ko mu liggéey ko